aousubillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim salli wa sallim wa barik ala seydina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ginnaaw bi ñu sandee suñu borom subhanahu wa taala ñu ngi julli seydina muhammad rasulullah sangub sang yi di ñaan tey siyaare Serigne Touba Cheikh Sidi Moutar Mbacke mu yàgg la daan ak wér di ko ñaanal Serigne Cheikh maam Cheikh Ibra di ko ñaan njaboot Serigne Touba Serap Fall mboolem kilifa dina yi ak mboolem kilifa aada yi yéen mbokk taalibe ñoo ngi leen wax asalaamaaleykum di am mbégte ak toofeex di jàkkaarloo si waxtu bi euh, seen émission ziar ñu fekk si waa daara Nurul Falaax féete fii si parcelle unité 8 nekk si CM eh, Ibrahima Thiaw. ñu ngi nuyu sëñ Mouhamadou Fall di ziara di leen ziar bu baax di nuyu mbo mboolem mbokk taalibe yi ñuy seetaan te di leen masow si coono yi ngeen mm, def ngir agsi fii. njëriñ ngir tontu question bi nga wax rek maanaam jàng xamee xamee nañ ci ni boo gisee kuy débuté ci jàng dañ koy faral di ko jàngaloo sëñ Massamba moo tax ñu référé wu sëñ Massamba yi waaye du dañoo tënku ci benn mag ni loolu moom moom la ñuy roy wala ci benn kuréel ñun dañuy xool li nga xam ni comme ni ko sëñ di waxee léegi moo jàpp na ci kuréel gi rek ñu ñu ñu répété ko noonu. ndax tey jii euh, barabu liggéeykaay boo dem nit ñi dañuy fàtt seen waxtu yi ba wàcc barabu jàngkaay boo dem ni ñi dañuy fàtt seen waxtu yi ba wàcc te neen ay jullit lañ suñu borom moo leen bind moo leen fi bàyyi te moo leen moom te kat lu tax ñuy ragal def loolu maanaam la ñuy la bañ ko leen dàq. nag lañuy la ñuy jot weer wu dee waaye nag murid bi moom ku ne xam ne ni foo dem ci Sénégal ñu ngi julli deux heures et quart ba mu des Touba ndax deux heures et moo ko waraloon Touba bi daan añ midi su añee midi su wàccee midi day añ une day sieste bu sieste ba deux heures nag nit ñi mënuñu julli deux heures et bi ñu jull looloo ko indi waaye nag suñ Touba moom saa su ne mu ngi wone dooleem ci liggéey bi waaw mu ngi koy wone ndax ñun gis nañ gàllankoor bu nekk wax nañ lu nekk. laaj nañ lu nekk waaye dama xale yi waa ne Maram ma ne leen mag lu mu jàpp fukki at ak juróom-ñaar amul na ko njëriñ. jërëjëf jëriñ Kadial Ndiaye jërëjëf Serigne Modou Sy jërëjëf sëñ Abdou Fall jërëjëf sëñ Abdou Rahman jërë ngeen jëf yéen mbokk taalibe yi mu doonoon seen émission ziar daara yi tey ñu fekk seen waa daara Nurul Falaax bu CM Ibrahima Thiaw fii si passé lu ñu tawit ñoo ngi am teg mbégteeg toofeex bu baax a baax say assistant ndax ba ñu ñëwee tayu nañ ñu tey defal nañ ñu ko ni ñu bëgg ni ko bëggee